sa song bi ak Fula Gangsta. Yeah. Tidak jauh. <laughs> Baru tidak jauh. <laughs> Ada kau tahu nggak? right now we get tough boost in Tegavio. Me over me over me over make trends, me over make wave. For real, for real. So we don't work force, but I knew them deep into the mm. nga freestyle ma to Yeah, say my eye they pain me. Oh wait, I just see. Do you see what I saw? Fico eight, you they enter my eyes. Fico eight, hale vile do fly one best marombe. Damoko deja wale tida ju. Yana naga. Uh, eh, I say tida ju, hale vile do fly one come tida ju. Chepe gal gene naka. yang ikut the way you work you so fine your good ikut that song tidak job yeah itu tak ngaji tidak job yeah like come create creativity lah like come dorang ada pick different name so tidak job being an influencer a big tiktok asid dekabi mm. so you know like come so you know, with something like that, at least the other side, be people will want to know what you're singing about. Unless when they see the guy to Tita Joe, me, me, then you're hmm, what are you really singing about Tita Joe? Okay. I'm going to maybe you're going to put taga, or you are singing comme comme yaa ngi ñëw sa di ko wéy comme so dégloo song bi sax it's not directly singing about Tida Diop but comme dañ ko rifatu Tida job well am man nu ma ko gisee comme like my one, okay, ok mbaa saa yi cross on Tida Diop <laughs> oh no, like like comme comme lulu noonu wah xam nga rek mooy loolu am na yeneen artiste mhm. lu dee trigger sen creativity wow, wow. Monica ida toxican yeah yeah I understand, yeah, understand. so mbaa boo nga si category boobu <laughs> yeah like man dama nekk dóor boo xam man I am, I am clean plain nude lie, I understand. What's up people, you know what time it is, I'm I'm here with E Hey, yo, yo, man, you know the vibe. This is your boy E McG, Bigelow's very own. Mm -hmm. Sending shout outs to all the viewers right now. I'm mm -hmm. out here with my brother here. So, you know, I'm gonna know that we're just getting started. For real, for real, for real. Yeah, man. I just want to say a big salam to you all, you nyip, alright? Yes, Whether you are foreign, you know what I mean? Well, first, Imagji, introduce us about Yeah, well, this is Imagji, Bijilo's very own. Judo Bijilo, Yero Bijilo dal. Luneka nekk and Godore. ko dooree. Mm-hmm. And maa to all the viewers right now, family bi and to all my fans. Alright. Keeping it 100 with me. Alright. Salam, nuyu Okay. So, Imagji, mun ko leeralal sa tur yeah, um, the name J because like Turbinum Dore, my man Ibrahim Alatuda, that's my real name. Oh, okay. And E is from there because many people do call me before E boy, oh, okay. E and all like that. And the name Magji because like it was given to me by one of my friends. Abdul Karim Jere high school days. Oh, okay. Because I am just go Dore High School, grade 10. I'm like, am nga time bu rek day ñëw school rek yaa ngi jos nekk tam nga ju liir si teg bi bu santé bi noonu soo booyee ñu ne comme man dama di comme dama bëgg yëfi mag mag lu daal oh. time maa ngi gën a ndaw yaa ngi understand <laughs> because my doors a ndaw booy maa ngi si koto yoo xam ne booy dama sonn da nga laaj yëfi mag mag lu soo comme mu doori ma ooyee mag ji xam nga mag ji mag ji so i mag ji mi noonu nañu gi ok so after si man maa brand loolu rek jël i bi teg ko fa ne ko i mag jë rek so. ok so noonu even before maa door music sax the name i mag jë was there. ah so loolu laa jëlee brand ko suma boobu mu woo ko. and that's it ah. turi mag ji bi comme ñu ko xam noonu la fa ñëwee. all right dégg ngeen loolu bu baax <laughs> loolu. nekk na loo xam ne dama dem toon extent boo xam ne man like waaw like man ñu maa déglu nii I think I can also try myself into this I can do this. why not and affaire si yëpp noonu la staré after si laa daan door di link up most of these producers ma koro yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci game bi xam nga Nini, a that time it was difficult to even got a studio to do my thing. Hmm. And unfortunately, my met my brother, Andy Mendoza. ñu nekk together moom back then he was going to school daf naan defandoo music ak booyam. ok si lañ job benn track nii nii si diggante bi xam nga time lañ daan pen down rek si note la xam nga. Hmm. after mu yóbbu ma studio ñu record suñu first song that was at where at uh, Halam Records at Kololi somewhere. then from there ñu job. after selling, lañ said, them on k fla record si finalized records, record suñ first single drop mm-hmm. and by then I was just doing it for fun oh. so after then back in 2019 si laa that money. ma why not I came up with my own at least I try something for myself for the first time mm-hmm. So I dropped my first single with the assist of small producer small current producer and I now Jaws Music yeah ma assist my into how to pen down that song ñu binda ko mu nekk after ma dem studio record ko si demoon and that was I choose you my first single. Mm-hmm. drop in uh, maa ngi drop in 2019 yeah early 2019. yeah okay and that's how a career like nga noonu la fa demee woon because like man suma bopp sax right now because man dama door. xam nga drop suma drop first single and nit ñi reaction nit ñi rek ñu ngi ko apprécier I was like wow. so xam nga man audience yoo xam ne out there they they willing to be fans and to listen to my stuff and mhm. loolu daf ma motivate mu yokkal ma ne like why not I can I can do way more a than this because it's something loo xam ne dama ko bëgga mhm. passion la ci man daal but party phone bi yeah ah, xam nga comme like phone nga ko defoon comme like pour uti hype bu ndaw maybe pour cepe yeeg non non <laughs> non comme ah. dafa nekk non du du du du pour cafe yi ah. because man generally comme dama bëgg a music am a fan of music. Ah, comme affaire si noonu la fa ñëwee daal. yeah man so being a fan of music moo tax nga choose like step bi. comme ma ne ok ba ma nekk artist. yeah yeah like xam nga like comme da nga nekk fan of music comme nga déglu dara. Hmm. da nga dem a trial sa bopp. waaw yeah dama dama dem toon externe xam ne like. lem record sax ma déglu suma bopp at least ma ko toppul sax ma déglu suma bopp how it's going feel comme yëpp noonu la dooree daal okay so yeah for sure man that's very cool yeah man so léegi um how does it feel to be an upcoming artist ndax nga gisee industry bi si side boobu yeah like in Gambia it's different like mm. every music lover or keep up connect as a music game we all know that like life upcoming artists especially in Gambia here from media sure from Yombut yeah it's a big tax mm-hmm. like challenge la so si yow si yow la dee des comme yow artist bi sa buga buga ak yow foo bëgg a séntu sa boppa in few years to come. all right and xam nga comme no no no nooy gaadee sa boppa to walk towards. Uh, put progress a career into another next level. Sure. So definitely meet that because like I think upcoming artists would door like I'm a lot support because studio bills right now we all known for the element of they share. Yeah. So they yeah. got like, I'm a lot background strong local support into that stuff they meet it. You have to pull out from your pocket and do all those necessary things. And definitely meet that. Where I put my mom Santa Yara, the people more door you know at the beginning I was doing all those financial stuff to myself but dem mm-hmm. nañ to an extent boo you ne you ngi jógee Bijilo am nañ a few boys who are interested in the music mm-hmm. especially Jaws mu nekk suñ producer we started everything Come on, naa Jaws music ñu ñoo the, man ah, la Jaws ak suma brother Mendoza and the like of ñoom xam di and it and dafa you as a family xam nga we just do something build up suñ own house studio noonu la affaire si growé right so ñu foofu lañ dee recordé Jaws moo lay def production moom sa artiste la woon and right now la gën a to si Jaws yeah so at least loolu xaw naa yombal thing bi si benn boor and santa yàlla from there and right now comme ñu ngi job daal di develop lot of things okay yeah for sure léegi naka nga mën describe music boo dee produce yow sa boppa yeah like um, man man I am an afrofusion artist man soo dégluwee suma songs yi previously because xam nga afrofusion dafa bëri sub genre mhm. so I am afro pop afro dancehall afro swing afro mhm. mbala everything so man music is based on that category because mhm. soo dégloo suma songs yi man I'm mën a laal afro pop you know afro dancehall yeah so comme yooyu like that sometimes sax like afro mbalahi ni yeah mm -hmm. afro mbalahi. that's how i create my music mm -hmm. yeah so all right lamu de trigger sa creativity si bir music comme nga tok rek comme ni bi nga def dara and then yeah. dulu mu trigger sa okay so my mind ma because, wa yeah because because man dama nekk ko xamne like man most of my thing like uh, suma suma de dem studio sa night session la la de always book mm-hmm. Because man, man, I come like man, I'm antisocial. Torap, then rush kat lah. Maybe like I'm a chapani on stage, I have thing and all that. Like, comme naturally ku ma xam ma man dama I always love being alone. most of the time laaxu suma nekk maa nekk si biir kër sax dañ maa laajte ana i génn na non ma biir nekk di déglu music di vibe sometimes dañoo toog la diga ku yuuxu si biir néeg bi yi maa ngi try create something boy. Hmm. Hmm. so man noonu laa dee joobee daal dama dee mën a toog maybe something mu trigger ci head bi ma feel like nekk dama dee jël suma phone a so non la fa réunion da ngaa ma ba voice di dara ma try pour ko pen down instant boobu noonu ma try guddi bi ma dem studio. ma di hard next divisa. ok damaa dem studio like tap maybe studio bi su fekkee nawet bi maa ngi record suma bopp right ah. songs from 29 up up to date. Mm-hmm. suma songs yi ma droppé maa di door recording bi maa di compose suma song def everything. Oh. daanaka door mix bi sax then after Jaws mu ñëw mix and master def all necessary stuff then you drop. so man dama always job suma track to my satisfaction. Mm-hmm. yeah after Jaws dafa am ñu ne ko nii ak laa ko bëggee nga defaree ma how I work. Uh-huh. am na yeneen mm-hmm. lu dee trigger seen creativity moo nekk ida toxicant ya, yeah, understand so <laughs> mbaa boo nga si catégorie boobu yeah like man dama nekk dóor boo xam man I am clean clean youth la yaa understand yi iya, mag ji du dutu yi iya, mag ji du naan any liquid du ma jël any substance of drug like man I am natural hmm. yeah even like Uh, so, uh, so, some of my fans, I'm like, they not question like, yo, so early stage, boy, how you dance and how you know the vibe, eh, boy, and I don't they not well, like, I don't know, man, that's how I am. Oh, Natural, okay. yeah, I don't okay. do drugs, okay. like, for sure. Okay, okay. Yeah, man, I don't do drugs. I'm, I, like, I'm a clean youth, for sure, man. So, the part boobu noonu, lan nga difference between you ak yeneen artistes yu jël toxic and pour gars yi créer dara seen brain bi wala suñ jëltee toxican du mun a perform si stage bi comme noo ko lay defee yeah yeah yeah like the, thing is like comme du ma mun a differentiate much because I don't know comme ñoom luñ dee feel when they do that mm. because like ma ma man feel na like when I am conscious I can do way more than if I'm unconscious. Oh. I understand. So so maybe I'm like loolu sañ feeling lah. Uh-huh. so mënuma wax ma jabar daal mënuma judge mm-hmm. yeah yeah I understand. Uh-huh. so man suma boobu lah xam man my ngi yeah that even of them studio sa, maybe sa, balaa maa gën a mun a studio na cob ba suur biir face. su mm-hmm. fees. <laughs> yeah man stage sa so sa balaa maa dem maa make sure ma cob ba suma biir bi fees. maa ngi cool si drink maa ngi cool. noonu la fa so keep ya, it up na ya. yeah man thank you a lot. <laughs> so am nga bijji loo nga right. yeah yeah sure. so nanga nga an artist should be right access item or society item number is responsibility ak sa waa society yeah yeah like man dama nekk koo xam ne maa ngi community bo xamne bijilo xam nga town bo xamne it's full of nice people and mm-hmm. supportive people and youth bari nga xamne you know come Get, they, always proud to support their own, you I understand. Yeah. And man, I got that love from my hood. And mm-hmm. you am lot of you see I'm not you job buka tugas game and then your studio new job and I'm make sure I keep a cool relationship with them. Mm-hmm. When they need advice from me, I'm they motivate them but gën naa encourage daal affaire si daal amul ragal. just have to push it hard. yeah man nga def sa def and come, noonu la noonu la ko dee dundee gars yi jaama rek laa laa see everybody sit down bi. Mm-hmm. and even all the artists in there ñu nekk di ñëw tam. comme non, la fa dem anything lu ma am daal loo xam ne dama leen di engage dama leen di andi gars into one platform am nga ñu def suñu thing daal. yeah Non, la fa dee yeah. Non, la fa dee demee kay si yoon. all right sa song bi ak Fula gangster. yeah. ti dà giù. Baru tidak juga. Ada kau tua enggak? right now we at the booth in Tegavio. Me me over me over me over make trends, me over make wave. For real, for real. So don't were force, but I knew them deep into the mm. freestyle and maturi for him. Yeah, say my eye they pain me. Oh wait, I just see. Do you see what I saw? Fico eight, you they enter my eyes. Fico eight, halebile do fly one best my besumaron bed. I'm kode jawale tida ju. Yana ah, naga. <laughs> Eh, I say tida ju, halebile do fly one come tida ju. Chepe gal gane naka. Yeah, it cool. The way you work, you so fine. Your body cool. Every weight, this stuff from your balance. Cause, hey, mm-hmm. mm-hmm go balance. Mm-hmm. You know balance. Vibe, yeah, man. Figure age. Yeah, yeah, yeah. For oh, sure, okay. Man, for sure. All right. That song Tida Job. Yeah. Lu tak nggak use Tida Job? Yeah, like um, create creativity like because I'm like man dem um, uh, naa ba toll foo I have been dropping because man since my door in 2019 maa ngi consistent amut like a whole four months without drop my song because uh-huh. every three months ma ngi drop song mm-hmm. so I understand and them on that one extent boo xam ne maa drop continuously maa get drop videos upon videos then uh, 2022 bi sax laa ca bane like food year bi dem na sax drop ma a music video I was just dropping I think ñetti single laa drop mm-hmm. that was the E Coli Gamalians Chanda thousand do and after dama dem sama toog around June bu ma dropee suma song Chanda ma like man I think I have to come with something loo xam at least because dama dee drop some dafa make tuuti wave medium hits yi nii xam mm-hmm. average hits yi rek xam nga oh, waaw song bi hype bi ma ne like I dama bu war a try daal commit something loo xam ne at least dafa xaj nii seen attention hmm. ma sot dëkk bi some will trend the whole Gambia or even beyond the Gambia so comme contributed to job noonu la fa ñëwee I understand because I think like uh, they, like um, uh, there's this time ma dem si studio just am bit bu ma download nii YouTube bi rek door di ko feel xam comme su ma nekk sa laa create hook bi comme uh, vibe bi bi nu mu fa demee la rek comme ma am loolu si mind yaa understand. Mhm. xale bi la du lay wax ba comme comme loolu moo njëkk a ñëw daal loolu laa njëkk a record. Mhm. xam naa ma am vibe boobu noonu daal soo ma comme dooroon naa di different names so Tira Jobe an influencer a big tiktoker si dëkk bi. Mhm. so you know like comme so ñëwee with something like that at least the other side bi people will wanna know what you're singing about unless we dey see the title Tira Jobe nii nii nii dañoo a xam what comme comme yaa ñu sa diko wuy comme so deglo song bi sax it's not directly singing about Tida Diop but comme dañ ko rifatu Tida Diop so non la fa dem comme because character waaw character bu amé amee you know la daal so non la fa demee bi nga xam nga like dang di ñun ñëpp ci town lañ di joggé boy ni nii di mëna a bu flash ni hey yo ndo bi ni ni comme ñene xalé bi lañ tuufé woon ba suma rombé dama ko dee jaawale Tida job you know la daal so té non la fa démé so dama njëkk a record hook bi like comme dama record hook bi song bi denc naa ko lu about six months comme xalaatuma hmm. woon pour faa fii benn artiste dama record hook bi noonu after ma defaroon a short video teaser post ko my Instagram bi ma taa Tire he liked the post and mu comment with laughing emojis I was like wow I think mm-hmm. ti ti ti tida like na li I understand mm-hmm. after ama dem some point am pour delete ko oh. after then sila talk sa basic kanan sa after like I think I need to bring an artist on the uh, song mm-hmm. take a time bo full just drop his chago song and all that am ga chago song nyo fa nek on video and wo chago bang everybody one and all that man after chago bini I think I have to do something with Flagangsta but before ma job Flagangsta Flagangsta mo on a song e a song called Kano ma e on and after ma Amanda bàyyi ma invite ko na after si laa ko seen project bi mu déglu mu ne ah, boy ma this is late toog mu seen ma a freestyle of his verse ma ko boy kay nga record lii am dafa ñëw maa ko record ma record ko tap tap ñu dóor some sort vidéo si studio bi foofu noonu ñu post ko eh, TikTok mm-hmm. moom moom dafa post si pijam bi boy affaire si dem viral about hundred thousand TikTok mm-hmm. and you know noonu laa plan ma ne song bi boy dama ko drop without a video okay teaching bi noonu la fa ñëwee après si laa job vidéo bi day before ma drop song bi sax toog naa sax ma ne booy flat booy maa drop song bi booy waaye song bi su hitutee booy faam it all this nii nii nii after mu ne ma ne booy bu woori over hit ca ba nga lay premier song like five o'clock laa ko drop it it it, uh, it was am um, January drop on Sunday mm. ma premier ko song release boy song bi dafa door dama dama toog léegi ne ma ko drop in next a YouTube capa views yaa ngi yi 200 views noonu mm-hmm. after ma aj bagage sa dugg a studio bi si night bi ma dellu si waat ma ñëw rek capa di naaw boy 2000 5k capa a whole day boy 10k bi I was like wow after ma nii laa dee toog rek di seetaan ma dee toog a YouTube capa boy bi ta ngeen na bii moom ngay jaala na kon de job bi baax na waaw correct ngay like nañ ko ma ko doon gisee comme like maa ngi waxoon ok mbaa saa yi I would cross on <laughs> non like like comme comme loolu noonu. waaw xam nga rek mooy loolu. because si mind xam nga like temptation daf la day mën a pousse wan. to an extent boo xam nag day mën a def yoo xam ne but pour sari Tida Jobe la si supportive you know what I mean and and and moom moom dafa love Gambian artists in general because soo seetee Tida Jobe daf dee support every Gambian artist indeed like it like soo nekkee the flow baax moom you working harder like si supportive. comme moom taanoon demal kii laa and kill laa demali when you are doing something nice si game bi rek moom daf la dee support and Tida since buñ droppee song bi sax. Mm-hmm. like si showing love and mu over push song bi. Mm-hmm. and saas to you the Jobe. yeah man big love for your support man. for real for real yeah yeah noonu la fa ñëwee daal. well all right um, so upcoming event bonakari i am um, made in. Bijilo Bijilo yeah yeah made in Bijilo concert bi like defoon nañ ko am year before last. Uh, mm-hmm. 2021 that was the first year uh, when I just thought of doing something in my hood, mm-hmm. it was not an EP launch or any project, Come concert life for the hood. Mm-hmm. After mo with the name Made in Bijula concert, Mm-hmm. and xam nga waa dëkk bi appreciate ko roy si biir dëkk bi ñu support ma first year bi baw boobu lañ ko defee si hotel bi and mu soo laa dafa fees and I was so surprised I understand then after si laa toog sama ne ah jarul ma ko roos then this year sa laa ko dooraat uh-huh. after si laa waxtaanaa suma gars suma management bi then after ñu ne waaye nag before ñoo dem baw boobu nañ dem bi jël si football field bi because right now ñu ngi ko fence na la that uh-huh. so after ma ne yeah it's cool because uh, bi jël football field bi si si si si holi bi jël bi la nekk like si school bi I understand ñëpp xam ne so waaw right now ñu drop suñu first waaye door nañ promotion bi right now dëkk bi door nañ di ko waxantoo mhm. and de date baa ngi sori ngum ah, mai 19 la after weeri koor so after mhm. weeri koor bi sax nañoo gën a fulal bagage waaye right now door promo bi dañ ko andiwaat fully it's happening made in Bijula Kansas 2.0 mai 19 la Bijula si football field bi and I'm calling all my fans and fu suma fan nekk daal biir Gambia maa ngi laa oo nga ñëw everybody in the in general, to yeah. all the Gambian music lovers. Mm -hmm. For sure, man, we're doing this 100. All right. Yeah. And Muneka as a second like event here. Event bit. Yeah. This time, yeah. lot of fancy they expect from you. Yeah, this time around, like do no my project EP or album, mm -hmm. but like man go have image like I am an entertaining person. I understand. Mm -hmm. So my stage deliverance small songs and how I present myself to the people and all of that. Yeah. But for this time around, we are coming different because you get mixed. because in first year we was come it was to the hook so we for over happen and organizing was late everything went nice you know what I mean right. and this time around you get try we're gonna improve your def fanga nga come xam again comme dafa come a tax comme nit ñi gën a apprécier lu ñoo def daal si community you understand mm-hmm. so this time around we just come in different big time inshallah Yo, Gambia yéen xam ngeen naka lay naa amee. each one each one ku nekk support because Gambia rek lañ am. comme ni ma ko dee waxee ah, ak suñu artistes yi. Mhm. suñu jàppale gars yi gars yi def si kanam gars yi def ko fii fii la you know what I mean. well all right so balaa ñu en um, waxtaan bi. naa bëgg nga jox gars yi benn freestyle. okay like me I want give God glory cause he never leave the boy lonely. The reason why these fans on me Now they call the little boy Mac G For the love of my fans I go stay In their eyes I see my holiday I be going where that money day. Hey, eh, you know the vibe, man. This is your boy Imag G. Vigila's very own. Yes. You know the vibe, man. Watch out for this artist, you know. Watch out for him. Watch out for him, you know what I mean? Yeah, man. So, Lulu Amalonte. I'ma see you next time on the ER with another yeah, artist, you know what I mean? Yeah, Stay tuned. Respect, you can comment as well. Respect, you know, Much love, Gambia. Yeah, man. Yeah, cool. you walk, you so fine. cool. Everywhere need this now. Fuck me balance, girl. Uh-huh. New Balance go.